tribune politique tey euh, tribune politique tey dafa ñëw euh, ñu fas yéene waxtaan ak Thierno Bocoum mi nga xam ne. moom mooy responsable national jeunes yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci réew mi tey nag dinañ waxtaan ak moom ci lépp li nga xam ne ay yëngu-yëngu la ci politique ak li nga xam ne lu concerne ñoom seen parti la li ñuy jiiñ Idrissa Seck dëgg la wala du dëgg ñoom xaalis bu bëri bi nga xam ne nit ñi ñu ngi koy dégg ci ñoom dëgg la wala dëgg Thierno Bocoum moo ci fas yéene waxtaan ak ñun ci seen émission la tribune politique Thierno ñu ngi lay ziar. maa ngi ziar bu wér. Thierno est-ce que mën nga ñu defal tuuti situation politique u Sénégal tey mu toll. waaw <laughs> situation politique Sénégal fu mu toll euh, da nga may may d'abord euh, ma nuyu ñu ñuy déglu di ñu seetaan si si car rapide euh, ñu nekk si réew mi ak ñu nekk si bitim réew yëpp je pense que tey Sénégal kenn umpalewul situation politique fu mu toll muy situation boo xamante ne ni am nañ en face un pouvoir bu bëgg yor réew mi ŋànk ko. Euh, téye ko bañ ko bàyyi foofu lañ toll tey parce que lépp lu am ngeen gis ko muy ay développement temps yi yëpp dafa jëm si def ba Ablaye Wade nekk candidat euh, def ba gañewaat ay élection et cetera te loolu doon na loo xamante ne ne ñun duñ ko nangu il n'est pas question. yéen ñan ñun su ma nee ñun mooy ñun d'abord jeune réew mi ak waa réew mi ñu commencé ko euh, si suñu njiit muy Idrissa Seck mm-hmm. ñun. C'est cadre jeune opposition bi parce que warul réere mbir ne euh, tay opposition bi jeune yi dajaloo nañ pour euh, di di taxaw temm pour que lolu bañ fi am Ablaye Wade warul nek candidat donc lolu leer na je pense que xex la bo xamantene ne ne euh, tàmbali nañ ko te dinañ ci dem jusqu'au bout kooku que ça soit absolument très clair maintenant réew mi fofu la toll mais concentration effort yoy am candidature Wade nguur gi def séminaire et tout ça soxla askan parce que tey soxla askan mhm. nit ñi nañ euh, dund gi cher na carburant bi cher na euh, nit ñi euh, situation économique du doy situation sociale doy donc tey si la Euh, lu ñu war a réfléchir mooy na la ñuy def ba wàdd mu abal ñu lu mu gën a gaawee. Mhm. waaye tamit nañu def ba képp keneen kuy ñëw bañ a def comme wàdd loolu tamit c'est important. dañu gis ni ci kujje politique bi ñu bëri ñoom li ñu bëgg mooy Abdoulaye Wade dem ñu fàtte ni ñoom dañu bokk ci jongante bi nga xam ne mooy 2012 te ñoom fàtte nañ ñi dañu war a présenter programme sénégalais yi est-ce que Idi moom sóoraale na ni moom dafa war a présenter programme wala yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ndaw ci sóoraale ngeen loolu nga xam ne moom la nit ñi di xaar ci yéen mooy maanaam programme bi nga xam ne mooy tax nit ñi am kóolute ci yéen pour fal leen waaw xam nga damay dama am envie sax ne la mais Badji est-ce que yaa ngi ci réew mi <laughs> parce que barki démb rek la doon def lancement IS4 muy euh, initiative des Sénégalais Euh, au service du Sénégal. donc mu structure cadre pour décider soutenir Idriss Seck si si si kii bobu, si manifestation bobu, si le one programme si le one vision si Sénégal mu bëri ay ay ay fan yu bëri yo xamante ne euh, gëstu na si parce que xam nga Idrissa Seck euh, ñu bari dañ doon wax naan dañ koy dégg. Mm-hmm. waaye xam nga euh, noppi tek tey dafay jëmbat xalaat te day suuxat xalaat. Mm-hmm. dafay tax nit ki. Euh, su dee yaa ngi xam ne ne tey li mooy priorité réew mi nga war a mën a toog trouver ay solution Idriss Seck yemagul rek ci programme bi parce que avant programme bi lépp loo xamante ne sonnal na Sénégalais yi bés bu génnoon di wax da ciy wax du wax ne ne am na mais day xool lu koy faj su ma la joxee mbirum électricité bi coupure courant yi euh, gis nañ ni ñu bari suñu génnee lu ñuy wax courant mu ngi coupé ah dëkk bi sonn nañ lëndëm bi mais loolu ñëpp ko xam loolu du information loolu du du ngóora ngóora bi mooy nga ne courant coupé na waye ni la wara mëna def ba dootul coupé ti loolu Idrissa Seck doon def. Mhm. Euh, donc situation bi fu mu toll ci réew mi rek génn na pour joxe ay solution tey nag mu joxe une vision beaucoup plus large. Euh, mu laal ci affaire Casamance mu laal ci affaire emploi mu laal ci affaire santé mu laal ci affaire éducation mu laal ci fànn bu ne parce que Sénégal tey dañ ko war a defaraat. Sénégal euh, toll na foo xamante ne ne suñu amul kenn ku am volonté politique bu jëlee ko ci loolu rek du dem. moo tax réflexion am dafay am doole lol lool lool si njëriñu Sénégal si luy tabax Sénégal. réflexion am dafay am doole lool ci luy njëriñ Sénégal ak luy tabax Sénégal gis nañu également ci biir euh, politique boobu Idrissa sek muy yëngu wala muy yëngal gis nañ ko mu sandi ay xeer kii di Macky Sall yow loolu nan nga ko jàngatee. non sànni xeer moom amul Idrissa sek du sànnikatu xeer. Mm-hmm. Euh, ah wante di naan Macky Sall am na lu mu jël. est-ce que war def ci lu mu milliards yi nga yi exact merci beaucoup. xam nga dafa am solo euh, daanaka yu bëri incompréhension noonu lay ñëwee. xam nga dañu euh, Idrissa Seck bañ poser question dañ ko est-ce que Karim Wade dina rendre compte mu ne leen du Karim mhm. rendre compte même Macky Sall bu wax Euh, jox nañ ko ay milliards sept milliards mu distribuer ko war na rendre compte. Mm-hmm. xam nga loolu principe de bon gouvernance la. loolu naka jekk képp ku koo xamante ne ne sa xel mu ngi màcc te nga jàpp ne ne réew mi war nañ ko mën a doxal loolu da nga ko war a nangu moo tax lu ñu comprendreul après mooy lu si am. Mm-hmm. xam nga euh, wax jooju dara gënu ko leer muy Karim Wade muy Macky Sall muy sa Seck muy ku mënti doon. war nga lépp loo xamante ne laal nga ko ci mbirum alalu réew mi nga leeral ko. Mhm. loolu je pense que képp kuy citoyen war nga ci d'accord donc Macky Sall kenn tiiñ tuumalu ko kenn wax ko da ngaa jël milliard kenn wax moom moo ne moom ci boppam moo ne. Mhm. jot na ay milliards. 7 milliards. Mhm. jël na milliards yi am na ñu mu ko jox ñu ne ko milliards yooyu fan nga ko jëlee ak ñen nga ko jox. xam nga loolu dafa simple question yu simple la euh, gisu jarul xuloo jarul xeex parce que euh, euh, question de principe la yoo xam ne ne kenn du si reculer soo si xuloo xeex si wax si ba sa ba sa dënn tàng du tere ñu ñëwaat waxaat ko fan la jëlee xaalis bi ak fan la ko yóbbu rek question boobu dina ñëwaat di ñëwaat parce que question de principe la su dee yow da nga ne da nga da nga da nga da nga set te suñ la waxee ne ne lii dugal nga si sa loxo na nga leeral ko da nga indi xuloo da ngay xaw a jaaxal nit ñi. mais dafa am ñu bëri ñu gis ni loolu nga xam ne ma euh, sa Seck mu ngi koy def di ko jëmale ci Macky dafa mel ni ku koy jéem a déstabiliser wàññi dooleem tuuti parce que ñëpp xam nañ ni euh, Macky Sall aussi euh, suñu seetloo bu baax a baax am na benn quota bi nga xam ne mu ngi koy am dafa mel ni Idi ci yooyu wax yooyu daf ko bëgg a wàññi tuuti. na wàññi wàññi amu si xam nga doole askan bi moo ko yor. Mhm. askan bi mooy tànn kan lay fal. su dee Idriss Seck la wala Macky Sall wala Ablaye Wade ku mënti tànn su dee démocrate nga républicain nga patriote nga war nga ko nangu. Mm-hmm. donc ñun euh, juguñu pour wàññi doole kenn. parce que doole yàlla moo ko yor moo koy jox ku ko neex Idriss Seck gis nga ñu jugoon di bugg a wàññi dooleem yépp teewul ba élection yi ñii daf leen a romb. te su élection ñëwaatee daf leen di romb. donc ñun suñu stratégie di wàññi doole mais suñu mais lu ñuy mënti def dañu siy boole dëgg. Mm-hmm. que loolu amul invention. Idrissa sekk tey ñu bëri ñu ngi teg si moom euh, ay tuuma. Mm-hmm. tuuma yooyu yëpp dañ ko inventé. comme ban tuuma. waaw xam nga am na am na bu weesu bu yàggul dara bi nga xam ne teg nañ ko ko. mooy ban si. Euh, xamatuma ban la bëri na de. waaw li ko teg bëri na <laughs> am na bu yàggul dara xam nga xam nga xam nga loo xamante ne da ngay tëdd sa néeg yeewu rek di ko wax. di ko wax mun nga chaque jour nga wax benn. Mm-hmm. Euh, mais lu am solo mooy Idrissa Seck bañ ko tuumalee. dafa taxaw ne fii ba jant bi di fay. ba jant bi di fay amul dërëm buñ mën a yëkkati ne lii lew la lii moomoo ko. lu ma am rek daf ma lew te fu mu jógee fu lew la it te loolu la firnde loolu moo firndewu yemul rek si wax ko waaye bañ defee enquête yi tëj ko sept mois prison ñu ne leen waaye yéen Idrissa Seck moom lan la def fan la ko defee kañ la ko defee ñu ne non non ñu ngi seet sept mois nga tëj ko borom kër. tëj privé ko ay njabootam privé ko ay militant am. Mm-hmm. pendant mois nga ne euh, yaa ngi seet waaye ba ñu seetee kërti kërti ba sonn ñu gis ne ne amul lenn luñ ko mën a tuumal ñu defal ko non lieu total donc tey euh, suñ ñëwee di ko continuer di ko tuumal di ñëwaat si loolu xam nga euh, dañuy tardel ñun mm-hmm. amuñu temps wu répondre si loolu xam nga li ma bëgg a wax rek mooy Macky Sall mm-hmm. lu ñu wax si moom moom moo ko wax sénégalais yëpp ñoo dégg mu ne jox nañ ma milliards sept milliards 14 millions de dollars. Je mhm. war ko ma jë ma distribuer ko nii ak Je mhm. xam nga la euh, rafle ne continuer di parce que c'est amul lu ñu reculer euh, euh, dégg naa nag ñoo xamante ne ne que Macky c'est vrai que nous avons def sa a parce que

am nañu beneen responsable bu ma dégg it. Moustapha Cissé waaw ñuy wax lu ñu teg ko si si deru Idrissa Seck. Mhm. xam nga dama ne <clears throat> si loolu ñun ñun dañu zen dañu maanaam dañuy xool situation bi mu def ñu ay ree parce que soo leen seetloo ba ñu tuddee Macky Sall ba léegi lu ñu doon waxal waxale sa Seck ba muy xeex ak Abdoulaye Wade wax yooyu moo ñëwaat tey moom la ñuy dégg mhm. xam nga li tax parce que groupe boobu doon comploté. pour xeex Idrissa Seck di jàppale Ablaye Wade si groupe bobu ñeu retrouver wu autour de Macky Sall c'est le même groupe. Okay. en fait ils ont dépoussiéré leur dossier. Mhm. génnewaat ko euh, génnewaat ne waaw. Euh, xa la wax ci fonds politique yi lan la wax ci chantier de Thiès wa sept milliards yi wa signé na protocole bi te loolu yépp dara du ci dëgg. mais bokkum xam nga xam nga dafa am bala ma lay bàyyi nga gën a développé loolu c'est-à-dire que Idrissa Seck. Euh, même su ne fi be jant bi fank ken du meuna prouver ni jël naa xaalis bu ma lew pas ken du meuna prouver ni waaw ken du ko prouver non pas ken du ko prouver uh-huh. ken du ken du mënul dindi dërëm boo xamante ne euh, euh lewu ko voilà mais ci lolu xam nga dafa melni Idrissa Seck dafa xaw perdre crédibilité am ci dem di ñëwaat paa bi di ko wo muy demat di ñëwaat est-ce que yeen xalaatu leen ni loolu moo gën tax mu perdre crédibilité am aux yeux des Sénégalais waaw mais loolu beneen fànn la. la mhm. ñuy wax d' abord jeexal si lii. Mhm. loolu beneen fànn la loolu mook sénégalais yi la. Mhm. waaye dafa am temps yi ñu jug di wax. dama bëgg loolu ñu leeral si mu leer. Euh, xam nga groupe boobu mooy groupe bu yooyu nga xamante ne dañu. foog mooy ñoom Macky Sall ak kaw non non waxuma Macky Sall. dama ne Macky Sall ba léegi attaqué wul Idrissa Seck. Moustapha Cissé Lo attaqué na ko tey. non man tudduma tur. xam nga ñooyu ñëpp pour amuñu amuñu solo xam nga damay wax benn affaire euh, mu leer. Mm-hmm. xam nga jug xaste saaga moo gën a yomb lépp. Mm-hmm. jug xaste saaga moo gën a yomb lépp jël rajo yi diw lii diw lii diw lii Sénégal tolluñu foofu Sénégal fu ñu toll mooy construire yàq bi ëpp na bëri na mm-hmm. nañu limiter yàq bi nañu construire. moo tax xam nga bu ba ñuy saaga ñu ngi nekk di présenter suñu programme est-ce que gis ngeen structure euh, bu APR. bo xamantene ne combat yu ñu nekk nii di ko xeex muy invalidité candidature Wade muy affaire Malick Nawel Seck bi est-ce gis nga leen ñu dugg ci dugg boobu xam nga luy luy luy objectif bi. Mhm. luy njëriñu askan bi tey doo ci gis ñenn ñi mais su dee saaga la wala xeex ñu jël rajo yi jël télé